yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci butim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Tiger Brother Sénégal compagnie. Sky cosmétique di jaay ay parfum yu baax ay original parfum. Sosim Afrique société de construction immobilière africaine. Bococo Market l'expert en paiement multiple Aquaterra ndox mi wóor te leer l'écran bu tàngee neex bu seddee neex KPay transfert d'argent bi gën a wóor ak kaay ma ñoo leen di may li ci yéene kaay bisimila lu nit def di ca tedd keneen torox na ca Dakar Times xëy daal ne kaay ma wax leen lan moo tax waa ndakaaru ak li ko wër rangaw ñu baadoore di siim cërey buur muy li nga xam ne mooy jafe-jafe bi am ci askan wi ci Covid 19 beeg réew mi ni mu jaxasoo waaye am na ñoo xam ne yëguñu ko Dakar Times ne ñan la mooy ñuy yëngu ci wàllu pétrole ak gaz ndax alalu askan wi yëpp ñoom ñoo ko encaissé Dakar Times tuddee les pétroliers encaissent des profits records. yéen a kaay daaneel rek L'As Quotidien jël daal ne jàppaleen ni léegi nag askan wi commencé dakasa ndax ceeb bi meew mi suukar si ak jën ji léegi ñu tàmbali ko wàññi L'As Quotidien ne. nguur gi dafay wàññi taxes yi nga xam ni moom lay tegal commerçant yi moo tax léegi mu commencé wàññeeku l'observateur yéene kaay ne laas déglul ma wax la loo xam ne léegi mu commencé wàññeeku muy location bi nga xam ni sonal na askan wi guddi ak bëccëg suba ak ngoon borom kër yi teg askan wi loo xam ni attanuñu ko léegi mu dakk ci atum mii ñuy dugg muy atum deux 2023 ci weeru janvier bi daañu wàññi location bi par force doole mbaam noonu la ko l'observateur yéene kaay dikkee tey Sud Quotidien ne état dafa seetaan ñii di askan wi kenn ku ci nekk di tabaxee nu mu la neexee ku yor sa oto xuur dabb sax di ko dawal nu la neexee te loolu lépp askan wee ci fayeeku askan wee ci sonn te loolu lépp nguur gaa ngi taxaw di seetaan Sud Quotidien daaneel enquête quotidien defal ñu enquête bu yaatu tey jii ci lan ci ñetteelu mandat Macky ndax conseil constitutionnel mun na ko valider waaw wala déet enquête quotidien ne li leer ba leer mooy mën nañoo jàpp benn président Macky Sall bu ko neexee mu wàññi mandaam waaye yokk moom c'est impossible ne pas Mimi Touré les échos yéene kaay moo ñu ko xamal ne Mimi Touré nag tàmbali naa freiné njabootu Macky Sall mi bokk ak moom ci meen ak geño ba ci sax première dame du Sénégal Marème Faye Sall les échos yéene kaay ne dafa mel ni Mimi Touré ñooñu lay xeexal ndax amul kenn koo xamante ne bëgg na fee taxaw tey bokk ak Marème Faye Sall wala président Macky Sall yóbbu na proposition de loi ci assemblée nationale ngir loolu ñu freiné ko le quotidien yéene kaay tuddee ko ne kii di Mimi accélère la cadence le Walf Quotidien ne contre-offensive Mimi ngir président Macky Sall ak njabootam dootuñu nekkati ñoo xamante ni ñoom la ñuy fal mbaa di leen folli ci réew mi l'évidence yéene kaay ne Mimi Touré fippu na nag ci kaw Macky Sall ndax jog na taxaw temm di xeex ak ñoom am na livre boo xamante ne ni bind nañ ko Amadou Ka moo ko bind tuddee ko les vingt six péchés de Macky Sall muy ñaar fukk ak juróom-benni bàkkaar yoo xam ni Macky Sall def na ko ku ko bëgg a xam demal yëri Vox Populi mi ngi ci biir critique yéen kaay ne kii di député yi moom bu yeboo ñu fabu te xam ni ci champ de mine la ñu dugg critique yéen kaay li ko waral mooy lii di groupe parlementaire yi dañ faa bari lool benn député bu manqué rek dugg nga ci rapitab sambalaw bi di nga arrangé beneen groupe parlementaire groupe la ñu bëgg sos muy Sonko ak ki nga xam ni moom mooy Karim Meïssa Wade muy PUR taxawu PDS ak PASTEF dañoo bëgg a boole parti yooyu mu doon benn ngir ñu xeex ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall loolu moo tax source a tuddee ko tey jii Sonko et Karim bu ñu jógee ci Karim la tribune yéene kaay dafa dalaat ci ki nga xam ne moom mooy Aminata Touré dugg la nag ci xeex ak président Macky Sall ak i njabootam bu leen kenn falati fii ci biir réew mi Sénégal bés bi la journée kii di Mimi Touré dafa joxañ président Macky Sall la téeméer yéen a kaay président Macky Sall bu fekkee dafa bëgg troisième mandat mun naa wékku nag ci ki nga xam ne mooy kan mooy docteur Cheikh Kanté ndax docteur Cheikh Kanté moom. bu ñu sukkandikoo ci témoin le journal moom tàmbali na lii di campagne bi ngiir Macky Sall am ñetteelu mandat le vrai journal ne Macky Sall mi doon ñàngal démb ba ñu tuddee ko ñàngal Sall moo commencé di ree tey le vrai journal ne fang ci xëta mu njëkk président Macky Sall muy ree noonu lakk day duggee ci askan wi kenn ku ci nekk lam la loon mu commencé la ko nangul le vrai journal ne li ko waral mooy président Macky Sall fo bëgg laal troisième manda l'info ne troisième mandat c'est impossible ndax Mimi Touré déposé na ab proposition de loi boo xamante ne képp kuy njabootu Macky Sall dootoo falooti direct news nag ci Kër Martin lu doy waar moo fa am ndax ab kaar Njaga Njaay moo fa këpp këpp reeru Macky Sall ak fameem loolu la Mimi Touré bëgg ci biir lii ko di quotidien mu ne nag Macky Mimi défier na ko moom ak njabootam 24 heures chrono ne Mimi Touré moom ab loi la bëgg boo xamante ne nii képp ku sant fay Sall mbaa Timbo dootoo nekk koo xam ne dañ lay fal ci biir réew mi Sénégal Sénégal déglu leen libération yéen a kaay ne gannaaw explosion benn turbine boo xamante ne daanu na am na ñaari nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñàkkante la nar a def ak président Macky Sall ci biir réew mi quotidien nee na ndax Macky dafa jàpp ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré en otage le mandat yéene kaay ne kenn du fi laal ñetteelu mandat te Mimi Touré nekk fi ndax yóbbu ne proposition de loi fële ci assemblée nationale l'indépendant yéene kaay ne les dix mesures phares pour soulage les sénégalais ngir wàññi li nga xam ne moom mooy location bi indépendant ne nguur gi jóg nañu taxaw temm ngir location bi mën a wàññeeku le réveil journal ne Mimi Touré moom li mu bëgg moom écarté fay Sall Timbo ci pouvoir bi l'exécutif yéene kaay moom tàggat leen def tey Lat Diop directeur LONASE borom géejawaay ak li ko wër l'exécutif yéene kaay ne Lat li muy xeex ak Macky Sall ca ci politique ak ci lépp doon nañ ko xaar ngir mu doon ministre waaye l'exécutif yéene kaay ne kenn falul Lat Diop mu doon ministre réew mi ko di jeene moo nekkoon ministre ca Chelsea noonu lañ ko mën a tuddee nekkoon meilleur gardien du monde tey Edouard Mendy remplaçant la lan moo waral loolu ku ko bëgg a xam demal yër réew mi quotidien la tribune sport ne réew mi yëngu na démb fële ca Sorano rëg-rëg ak Sa Thiès Balla Gaye ak Boy Niang numéro 2 dañ fa doon face à face waaye face à face bii gën a rëy mooy diggante rëg-rëg ak Sa Thiès record yéen kaay na ASC Milan ak Chelsea revanche wala confirmation stade yéen kaay ne déglu leen ma wax leen ñi nga xam ne tey mën nañoo qualifier huitième de finale mooy Paris Saint-Germain sama équipe Real de Madrid ak City ñoom ñi kenn ku ci nekk bu gañee tey mën naa qualifier li nga xam ni moom mooy huitième de finale final la diggante Papa ak Cité le 6 novembre xeex bi kan la arrangé am na ay experts yoo xam ne wax nañ ci biir suñu làmb ne kenn la xeex bi arrangé muy Papa Sow moo dàq xeex Siteu Siteu xeex bi arrangé wu ko du samay kàddu am na ko ko wax ci biir sunu làmb làmb ji Modou mooy roi des arènes loolu kenn werante ko waaye ñetti at a ngi nii bëriwul suñu làmb ne ndax Modou dina libéré li nga xam ne moom mooy làmb ji ren mbokk yi ma libéré leen li nekk ci biir l'observateur yéenekaay déglu leen déglooti leen am na lu xewati benn waay daal sib sone jabar ji rek ne dafay lëkkaloo ak benn xaritam mu dagg nopp jabar ji ku ñu dagg sa nopp doo dégg de waaye déglu leen ma wax leen li ci biir libération yéene lii moo gën a garaaw foofu ci suufu pont Kër Masaar bi la ay nit ay sàmb subum gay ay sàmb sura ñaar lañu jàpp benn dof rek sëgg ci di defar rek di ko waxtaanee rek di defar rek ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ leen ci biir libération yéene kaay xoolal ma lii rek ku xelam neexul nga jàpp di ko tëddee ñii comme ay mbaam À demain, Inch'Allah saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra. sponsor officiel de votre santé Aquaterra moom lay naan fii lañu ko defaree si réew mi ay doomu réew mi ñoo koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sell na neex na baax na yiw na dal na te daf may dalal Aquaterra ndox mu sell mbokk yi biir Tiger Browser Sénégal compagnie coopération Chine Sénégal lu doy waar laa la di wax am dee jànk ndaw comme nga ko waxee rek affaire bu doy doy waar fii mooy Chine si biir Sénégal lan mooy Chine ci biir Sénégal dañoo jël Chine indi Sénégal wala lan la noonu mun nañ wax loolu ba tey de man su ma soxlaa dara nekk Chine nekk Sénégal non ma koy defal. te li koy commandé si njëg bu yomb c'est-à-dire bi nga doon dem Chine. fekk ah. sa billet d'avion bi kon da nga ma da da nga ma mooy billet d'avion li li ngay jëndee Chine da may jaay. effectivement kon yow yaay tay de projet Sénégal compagnie. Ah mais lan ak lan ngay def da ngay def groupage conteneur. comme ni nga ko waxee def groupage day def aussi di la chargé sa conteneur def ko surtout tout ça tamit fret aérien aussi dañ koy def. mbaa loolu cher ci xaalis. cher da ngay def plomberie plomberie sanitaire. da ngay def carrelage. ah oui mobilier ak lumière. menuiserie bois alu ak métallique. lépp lu may soxla si wàllum kër. même sax lal aussi dañ koy jaay. et puis dégg naa la leen mucc ayib rafet baax. lépp looy soxla ci biir kër. lépp lu muy lekk lépp lu muy naan tay nga Rose Sénégal compagnie di daw. adresse bi. coono wàcc na adresse bi fu yomb la mooy croisement dem ba néew suba champ bi foo wootee ñu gëstu la. Rose Sénégal compagnie xanaa ñun nekk ñu parcelle ak fan.

ak kaay ma ñoo leen doon may li ci yéene